salaamaaleykum gëj naa génn maa ngi leen di siyaare bu baax gëj naa sama compte sama euh, suivre suivre waa suivre tik youtube gëj nañ maa gis parce que xam nga damay topp si continue ba du ma def ak wax ci actualité yooyu di dugal mais jusque lu tax mooy gi def vidéo tey pour Kaliphone la Kaliphone sama bàyyante ak Cheikh Ahmed Cissé si yow la jógee parce que dama la man Cheikh Ahmed Cissé moo doon sama xarit falaa daan dem di ko waxtaanal daan la fa fekk bobu amo bës kenn xamula ah Cheikh Ahmed di di def direct nga si feñ ba commencé mu lay may doole ba commencé am doole Cheikh Ahmed si c'est parce que nga nan dem foofu di di mu lay iri caga ji foofu di namp foofu ci kër yi sama kanam la waaw loolu mosuma ko wax sama kanam la danga daan daan daan lijjanti caga nga dan namp foofu parce que Cheikh mus Californie woro wor ma dugal sa yi ngay def woro mo ci won dugal yow dama waron tepp parce que sama xarit nga parce que dama la estimé won fi nga fi daan dungur dora Gueye diko maral ay tatam Dora Gay, la Dora ah Dora dora Gueye dora Gueye dora Gueye dora Gueye di def ci ñeneen yi te deful ci kenn ah musoo tok wax ko musoo tok ne dora Gueye nay dimbale population musoo ko wax di dem attaqué woon nga fi Marème Faye jékki-jékki jiw ak dem si Marème Faye di ko dunguru di ko maral ay taatu Marème Faye taatu Marème fay Sall yi ah nga koy dem di maral mosoo wax ne population bi sonn nañ mosoo toog wax ko ah tey nag Aziz nga gis naan ay Aziz day sacrifice Aziz dafa kii parce que Aziz faalewu la bàyyi leen seen yooyu bëgg nga rek Aziz woo ah may la xaalis loolu nga bëgg danga bëgg Aziz woo neexal la Aziz doxewul noonu ñun man de. xam bi ma feebaree xamoo déggoo ma ah diggante wuñu xamoo si lu ma nekk xamoo Aziz sama diggante ak Aziz tuuti nga si li jënti ko naan soo feebaree Aziz Ndiaye du la du la kii Aziz soxlawuma dara ñun ay complice su Aziz lañ comprendre nga ñun ay xaritu Aziz Ndiaye ak Ba Ndiaye lañ ñun ay xarit ay ak ay Oustaz Modou Fall dépassé nañ ay jox ay joxalante euh, joxal am jóob joxalante njaay sooy wax nga wax si kese mais baay la di yàqee bàyyi di yàqee bàyyi di yàq nit Californie loolu baaxul loolu baaxul Doro Gueye nga waroon njëkk a yàq ah fi nga fi yow kenn sénégalais yi waruñu laa gëm parce que fenkat ga fii nga fi yàqoon ne Adji Sarr am nga ay preuve am yaa ko fi waxoon waxoon ne ne am nga preuve Adji Sarr ak Sonko yàggul lan moo tax mënatoo ñëw Sénégal loolu la mais Californie sénégalais yi lay déglu sax ñoom man ñoo ko def yow di déglu Adamo sax moo gën moo Sénégalais yi di à wu si Adamo sax ah muy wax di reetaan loo Adamo Des naa nga di concentré wu Cheikh Ahmed sax gën ci yow parce que da ngay fen da ngay yàq nit loolu baaxul loolu baaxul les lépp si ma les lépp fii ma fekk lépp fii la il fekk bi ngay il Sonko a Sénégalais yi dem lan moo tax ñëw Sénégal waxante dëgg na moo tax mënoo ñëw Sénégal ah lan moo tax mënoo ñëw Sénégal barki Serigne Touba fii ba ngoon ba suba suba suba su ma déggaatee dara si Aziz Ndiaye wala dara si Baye Ndiaye dinaa la attaqué te yor naa say preuve yor naa say preuve yoo xamante ne mën mën naa kaa génnee su ma ko déggatee nii nii nii si ngoon ngoon wala tey wa wala dell oustaz Modou Fall su ma ko déggatee tey suñ ma envoyé sa direct ñu ne ma Kaliphone mi ngi wax si Oustaz Modou Fall wala Kaliphone mi ngi wax si Aziz Ndiaye lu xolal wala Kaliphone mi ngi wax si Mbaye suñ ma ko envoyé barki Serigne Touba ma am lu ma dugal tey tey tey billaahi wallaahi talaahi barki Serigne Touba ma am lu ma dugal dinaa am lu ma dugal